tous waaye bali bu tiit ndengeñ ko rof ba galgal yokku sa fit Management présente Ouz Boy PA et l'Avenir Group ce vendredi novembre au Alizé Night ex Madison mbokk yi newoon naa leen Sambou Djinné soxla Dakar ku yëg daanu xale bii ku mu bokkal génération bàyyi nga ko xel Ouz Boy Peya koo fas yéene sargal mu ne ma Guèye Sarr borom xel comme VIP Amadou Guèye borom Pikine ngi noonu si Sidat Vision borom dàll yi ci Ndakaaru Mansour borom yëmbal Mbow Ngalla Fashion ak ki nga xamante ni moo di Kolo borom Grand Yoff Samba Souna doomu Badara Kébé borom Grand Yoff ah mbokk yi Ouz nee na daf ciy woo ay fansam di leen ci sargal waa OZB Ale borom Dakar Plateau di ci woowaa mafia bi King Fat ak ki nga xamante ni moo di Fifi Ndiaye borom le 27 ngi noonu mbokk yi nee mi ngi ci woo Anna doomu ndeyu mami ak Fatou Sadibou borom Dabax construction Serif Couture moom mooy ñawal xale yi moom la xale yi jox bopp ah mbokk yi Alaaji Buur Géwél Jobaay soppee Seex Béthio Thioune bu mag baa ngi noonu borom géwél gi Couture borom ciseau d'or bi ah mbokk yi Omar Wali Fashion di ci woo Baye Niass borom jaaxo bi Serigne Ndey Saax ak ki nga xamante ni moo di Modou Saax borom Cees ngi noonu taalibe Serigne Modou Mbacke di ci woo ins borom Apple business ak ki nga xamante ni moo di Aïda Ndiaye borom parcelle a ngi noonu di ci woo Mor borom aw fashion osé sans limite kon nag mbokk yi xew-xew baa ngi noonu vendredi le 27 novembre ca Alizé night club ex Madison foo sànni mbatt mu nar a tàkk ak Ouz Boy Pea man jee Ouz ku ma fa dëgg ni ma mast waaye lii comme guerre